moom it jeex na jeexal na pour mu dem yal na jeexalee si woy bu rafet mais lii ma lay wax nii nañ ko tegg si ñaari fan yi muy lundi jeudi bu koy jàpp na ko jàpp si ñaari jours yi sinon bu ko jàpp si ñaari jours yi jour bu mu ko mun a jàpp élection yi dina jaxasoo te bu jaxasoowee woy dina jib foo xamante ne kenn foogeewu ko woon foofu te élection yi kii ma gis nii ba léegi chaque jour ki ma leen wax ne moom laa gis si bopp réew mi nii mu war a jël deux mille vingt quatre bii bu dee élection yi sotti na wallahi la azim dina betti ñëpp te kenn du ko ko foogee te ay baaraam yu bari ñu ngi ko koy duut ne kii du bokk wa maanaam kii du ko mos a jël kii yellowul réew mi te kooku la yàlla def pour mu yellow réew mi nag beneen bi ci topp muy détenu yi man yàggoon naa leen ko wax euh, décembre laa leen wax ne gis naa génnum Ousmane Sonko nii nii nii nii nii mais gis na comme li ma lay wax rek bu nga yor xam-xam di wax lu la neex wala yor xam-xam di far ñoom ñooy lor zaari Ousmane Sonko yi zaari Macky Sall yi zaari ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndaxte waxoon naa leen décembre laa gis génnum Ousmane Sonko bu bu rëccee décembre bi gis na fi ngeen di teg seen tànk da ngeen koy teggi teg ko feneen foo xamante ne da ngeen koy nangu Ousmane Sonko mën a génn si fii mu nekk nii dellu si njabootam te ñun ñii may wax ak yow ba si man mii di wax ak yow barke Seydina Mohamed Ousmane Sonko bokk naa si ñi koy ñaanal pour mu génn si kaso bi ñibbi si njabootam ndax njabootam ñoo ko gën a soxla fee mu nekk ne këram këram la ko gën a yel moo ko gën a yelloo ne kaso fee mu nekk ne ak keneen kuñ fa mën a tëj mais nag jamono biñ toll nii nga yokk karaw euh, xar mi karaw. loolu dafa baaxul di nga woote si plateau bi di wax ne ay détenu yi nii détenu yi na le kii dafa waroon a def lii lii c'est trop tard mu ngi génnee ñii ne si kaso bi bàyyi leen ba mu génnee ñi nekk si kaso bi mu ngi def dialogue ku mun a wuyu ji dialogue dem wuyu ji dialogue ku mun a wuyu ji dialogue ngeen déglu ko fu mu fu muy mujjee mais di yokk xaar mi karaw di wax ne nii kii dañ ko war a génnee wala de c'est trop tard dafa am dafa dafa ñàkk pexe moo tax mu koy def. loolu loolu kuy taal dëkk mooy def loolu. merci merci beaucoup nañ bàyyi Macky Sall mu def lu muy def. Mhm, merci. ki may tëjee nag mooy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ak ku mun a doon si biir kaso bi képp ku yellew génne rek nañ nañ leen yàlla ñu génn ñibbi si seen i njaboot. Mhm. mais élection mu jege mu ñàkk a jege. man mhm. gisuma gisuma mu jàpp ko si fan yi fanam yu jege. man fi ma ko gis na ko maanaam na ko jàpp si dat boo xamante ne képp koo xamante ne dafa war a bokk mu bokk si ñi bokk ba pare nag laa la wax mais nañ ngeen bu baax a baax te xam ne élection yi élection yi jaxasoo lay doon. d'accord te jàpp ngeen ni maanaam bu ñu tëggee élection yi nii day yomb loolu da ngeen di nax seen boobu de. te deret bi deret bi de. merci merci beaucoup. waaw deret bi jeexagut li ma leen di wax nag mu ngi noonu. merci merci. jaajëf jaajëf ñu koy eh, jaajëfal xaar keneen ci ligne bi 77 810 90 90 ma bam doot ko 77 810 90 90 waaye laa ngeen def ñu ñoom eh, sëñ eh, Basirou Cissé ngeen jël seen message daal di koy jàllale ci chat en direct su ko defee de ne leen ko liiral Pape Ibrahima nee na pas de gisaane fii merci <laughs> Pape Ibrahima Faye moo bind li ni mel ñu ngi koy nuyu attention certains recalés sont en train de faire campagne pour une reprise totale du processus je crains encore des surprises ah oui Ibrahima merci pour l'alerte quand même sànq maa ngi ci doon addu ah Ibrahima Pleya merci parce que itam ñi nga xam ne ñoo di recalé euh, certains recalé sax laa wax coono ji yëpp ñoo ñu ko indil ñoom ñoo seeti woon président euh, ñoom ñoo taxaw ñu abrogé fi loi ah, mais ces recalés la elle commence à nous coûter cher hein <laughs> contre ñu kenn nag mais tamit ah, daa mel ni mbir mi chaque fois dara su am ci ñoom lay daal di jugee a à a Pleya pour l'alerte nee na gars yi def ndànk na gars def ndànk daal donc euh, mbir maa ngi noonu daal salaamaaleykum. maaleykum salaam na ngeen def Binta. ça va si loo nekk. yaa ngi si sant yàlla bu baax. naka Sénégal. Euh, ah comme d'habitude rek li ngeen fi bàyyi de moo fi am ba léegi. gis nga. <laughs> nuyu maa ngi nuyu sama Diouf. Mhm. sama frère sama lépp maa ngi koy nuyu. maa ngi koy mhm. ziare. di nuyu Pape Ibrahima Ibrahima Pereira Mamadou Amar Satouba Pape Demba. Cheikh mhm. Sadibou ñoom yëpp maa leen di nuyu. ñoo lay fay bu baax a baax. di ñëw ci thème bi. Mhm. Ah, élection yi daal ñun élection la ñu bëgg a jëm élection yi dañ ko war a jàpp ci daar daar ñun loolu la ñu soxla. mba di yéen a pare. ñun koy pare nañu wax naa la man wax naa la bu yàgg pare nañu. <laughs> d'accord. ñun pare ñun ñun parti de ci fa ñun pare nañu. d'accord. di wax waa conseil constitutionnel chaque jour man dama la wax ñoom conseil le trois ba léegi ndax fu ñu nekkoon man loolu boobu léegi daf maa daf maa jaaxal. ah mais tamit il euh, faut ngeen xam ne euh, euh, conseil constitutionnel ñu leen saisir am nañ weer. maanaam am nañ weer. pour euh, prononcé wu ci loolu la tax. léegi nag ñoom ginnaaw bañ toogee def seen taxaw seetlu xool li. ah euh, ok kon am nañu weer kon baax na kon naa sama xam-xam eggul foofu. waaw waaw a tax informé la donc suñu leen saisir am nañ weer. pour pour damaa gis ñu ñu damaa gis ñu libéré euh, détenu après dans quelques heures rek ñoom ñu door a wax loolu moo ma jaaxal daal. ah ñoom ko ñoom ñoom ñoo ngi. après encore ñoom parce que may nañ leen weer suñ leen de suñ leen saisir ba pare am nañ weer pour. tontu réseau bi xam naa réseau bi kiiwul bu baax de. ah d'accord kon ma de dégg naa la dégg naa la. ah waa léegi conseil constitutionnel ñoom affaire bi yëpp lu ñuy wër wër ñoom ñoom ñoo waroon jàpp date ñoom ñoo waroon affaire bi gën a yomb daal ndax élection la ñu soxla gis nga élection dañ ko waroon a jàpp ci daar daar fi avec balaa ñu egg 2 avril léegi su ko defee nag Sénégal ñëpp mun na nekk si jàmm parce que Sénégal fu mu nekk nii moom kenn nekkul ci jàmm kenn xamul fi nga toog ñoom ñoo waroon jàpp comme ñooñu am nañ ci droit da ñoom ñoo waroon jàpp date ñe date bii am président Macky Sall jàppal date bii léegi ñu dem élection affaire bi gaaw affaire bi jeex ku nekk nekk si jàmm. Mhm. léegi détenu politique yi ñu jàpp yépp nag ñu bàyyi leen loolu mooy l'essentiel ñu bàyyi ñëpp. Mhm. après encore lu may dégg témoin mooy dafa metti ci xol. Mm-hmm. du ñu mel ni comme policiers yi comme nekkuñu ay doomu aadama da ngay déglu témoins yi boo da ngay jooy da nga sa rongo ñi day wadd sax te doo doo xam fu mu jaar. parce que mm-hmm. ñun ñoom lu ñuy nettali métti na. Mm-hmm. diggante yow sénégalais ak sénégalais non jorom loolu métti na ci soxol. damaa jëndi woon mburu dañoo gis ma sol yéen mooy di damaa def nii rek ñu jàpp ma dugal ma ci kaso bi di ma def loo xam ne non loolu dafa rusul ci ci tene ci kiiw Sénégal ci police Sénégal dafa lu fa ruslu. waaye ñu def ñooñu yëpp ñu def yooyu yëpp après ñoom yaa def def remplacement. nañu dem defi remplacement ak ñu indi problème bi yëpp ñoom aji saar ak ñeneen ñeneen yëpp ñu indi affaire yëpp nañu dem defi remplacement ku nekk na ñam. ah déet waay. loolu moo gën ah kay. remplacé jàmm bu nekkee rak wala nga nekk yaay wala nga nekk mama wala nga nekk loo mënta nekk. Hmm. yow yow déglu rek depuis boobu ba léegi témoins lu ñuy wax dafa metti effectivement. moo tax ñu indi xolal ñu indi affaire bi yëpp ñu indi affaire bi yëpp nga xam ne seen loxo yi dañuy takk ci affaire bi. Hmm. nañu dem ñam ah yow ñu dem ñam tuuti rek nañu dem ah, ñam bu xam. xam nga xam nga xam nga tubaab dafa ne tubaab bi dafa am lu mu wax lu am solo dafa ne euh, même sa noon bi gën a mag waroo koo yéene kaso ah, kaso moom. Mhm. dafa dafa doy waar daal. waaye waaye yow affaire bi ñoom ñoom ño def di. pare dialogue yi dialogue bi wax dialogue gis nga balaa ngay wax dialogue dangaa war a jàpp dat ba pare man foofu lool man sama gis-gis foofu laay ah, gis mais moom nee na nee na moom nee na woote bi pour nga pour am dal la moom tàmbali na sax tàmbali na xaw ma ndax dialogue xaw ma day concerté xaw ma day dialogue mais en tout cas tàmbali euh, ba ñenn ñi naa wax ak ñoom durant ah, durant tout euh, le week-end mu ngi dalal mu ngi waxtaan ak gars yi dialogue dañu dialogue dialogue chaque jour dialogue te dialogue bi du indiwul dara indiwul changement indiwul dara da indi ay feewaloo ci opposition bi opposition bi ñoo xam ne pare nañu nañu dem nañu dem campagne mhm. battre élection yi ñoo xam ne mhm. pare guñu nañu toog fale ñoo xam ne pare wuñu ñoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi te ñoom bëgg ñu dem euh, élection nañu dem toog fale ñoo xam ne pare nañu nañu dem élection dialogue jaratu ko dañu jàpp dat balaa ngay def dialogue nga jàpp dat ba pare léegi ngeen mën a waxtaan mhm. merci beaucoup essentiel merci Binta bàyyi ñeneen ñu dugg merci merci merci Euh, jaajëfalaat oustaz euh, si bu baax a baax ah, mot sekk nee na euh, Waly Diouf la ñuy déglu fu procès bi toll ban procès Ibrahima Play ne ne je sens que Macky Sall va gérer ça ah, restons prudents loolu la Ibrahima loolu la Ibrahima Play daal di bind aleykum salaam Diallo na ngeen def. naka journée bi. naka naka naka naka waa fan sax waa waa ngaay wala waa Touba. ngaay na xëy Macky Sall liggéey na liggéey liggéey bu jaar yoon. Ah. kon kon gars yi dañu doon ak suñu président nga <laughs> dana wax jërëjëf Macky Sall.